أرهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجا جخم نينا كما تتجلي بلا بجر كم مستدجر موم تكنين زور بجر موم تتريه يالا كنن تتريه يالا كنن moom la alquran di wax naa wa taral jibaala taxsubuhaa jaamidatan mawiyatan ghamra sahaab yaa ngi janoog doj yi mu ne yaa ngi janoog doj yi yaa ngi defe ne dañoo taxaw yaa ngi defe ne dañoo taxaw te ñu ngay dox dox bu gën a gaaw sax bi niir yi dox te ñu ngay dox dox boo xam ne moo gën a gaaw dox bi niir yi dox ci kaw foofu ci la aarif di xamee ne foofu nag ci la aarif di xamee ne jëm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi jëm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi ak yéen ñibbi bi ci jotaay bi sase du benn ak bëri ñibbi bu jotaay bii sase duxul benn te jëliyaat yaa ngi yéey rek. te jëliyaat yi daal bu boobu bu jëm rek. ma ne du yàlla ala feeñu ci kii. te du dugub te yàlla ala feeñu ci kii yam. benn feeñu ko wéy na. benn feeñu ko wéy na. bu feeñu xaat la ci. bu feeñu xaat la ci. ñaareel bi du bu njëkk ba. bu ñaareel bi xam nga kenn du bu njëkk bi. yàlla feeñu ci baay bi. yàlla feeñu ci baay bi. moo feeñu ci doom bi. moo feeñu ci doom bi. te jëliyaat yi bokkul. xam nga ne te jëliyaat yooyu day bokkul. loolu tax doom lu mu nidu nidu bàyyam xam nga loolu moo tax doom lu mu nidu nidu bàyyam fokk mu am ko ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi. ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi. fokk am lu ñu wute. fokk rek am lu ñu wute. lu tax tëjee bi dañoo bokk dañoo wute. mbooloo mi gënoon ci néeg yi daje fii. mbooloo mi gënoon ci néeg yi dikk daje fii. yéen a ngi yàgg a yàgg. ñu ne mbooloo dem nañ bu yàgg. yeneen ay yeneen a fi nekk. ñeneen sax ñoo fi nekk. jotaay bi tas yeneen a fi jógee. bu jotaay bi tasee yeneen a fi jógee. ci àq tajaliyaat yi ci wàllu baatin de. ci àq tajaliyaat yi ci wàllu baatin. waxuma ñu waay nag di gis lu muy duñ gis lu muy lenn. waxuma ñu waay nag. nga xam ne duñ gis lu muy lenn. duñ gis lu muy masaayir gis lu dëgg-dëgg. duñ gis lu muy masaayir gis dëgg-dëgg gi. ci kaw loolu. ci kaw loolu nag. lépp. lépp. lenn li ne. lenn li rek la. lenn li mu ne lépp. nettali itam mooy lépp ci ak asal ba ci abat ci asal ba abat ñun jaami yàlla lañ ñun jaami yàlla lañu yoo xam ne jaami yàlla yoo xam ne dañoo dëkk di aajo jëm ci yàlla dañoo dëkk di aajo jëm ci yàlla jëm ci jëmmi yàlla ji jëmit ci jëmmi yàlla ja ndax dëgg-dëgg jëmmi yàlla ji rek a ñu doy ndax dëgg-dëgg jëmmi ja rek moo ñu doy leneen lu mu ñu jox leneen lu mu jox nag lu mu rëy rëy lu loola rëy rëy dana jeex ñu soxlaati jeex ñu mooy jëm yàlla ji lu mooy nag ñaan ci fan yii maa ngi ñaan ci fan yii maa ñaan jiwu yàlla ñi ngi ñaan jiwu yàlla ma gis ne jiwu yàlla du ma jëriñ dara waaye gis ne moom jiwu yàlla jëriñu ko dara ndax dafay jeex ma dellu soxlaati ndax dafay jeex mu dellu soxla xaaj. yërmande yàlla du ma jëriñ dara. yërmande yàlla it mu gis ne du ma jëriñ dara. dafay am fu mu yem ma dellu soxla ndax day am fu mu yem ñu soxla xaaj. ngëneelam noonu. ngëneelam itam noonu rek. mayam noonu. ak mayam itam noonu. lii lii jëriñ daal. lii jëriñ nag. nga xam ne boo ko amee. nga xam ne loolu boo ko amee. dootoo aaju mukk. dootoo aaju mukk. mooy jëm yàlla jërëjëf. mooy jëm yàlla jërëjëf. kon nag yàlla ñu yàlla may yàlla. kon yal nañu yàlla may yàlla yaa rabbi. leneen lu mu ñu may rek dana jeex. leneen lu mu ñu may lu dul loolu dana jeex. leneen lu mu ñu may danañ tàggu mu delloo aajo. leneen lu mu ñu may danañ tàggoog loola delloo aajo ah. kon yal nañu may yàlla. kon daal yal nañu may yàlla yaa rabbi. loolu rek a ñu mën a jël. ndax loolu rek a ñu mën a waxoon na ne. Moussa waxoon na ne. yow borom. yow sama borom. lépp loo wàcce ci man. lépp loo wàcce ci man. yiw yiw. année boobu dafay gën a waaye booba kat bi ñu wax loolu day gone. waaye ba matee. waaye ba matee nag. jëmm ji la ñaan rek. jëmm yàlla ji rek la wax ñaan. rabbi la wax. ma gis ne. ma gis ne. lépp lu jaam ñaan. lépp lu jaam di ñaan. soxla na ko. soxla na ko. waaye bu ko amee du tere mu soxlaat. waaye bu ko amee kat du tere mu soxlaat leneen. lu mooy jaam bi am yàlla rek. lu mooy jaam bi am yàlla. yàlla nañu yàlla may yàlla. yal nañu yàlla may yàlla yaare bi te dig nañu ko te yàlla dig nañu ko gëpp ne nañu wax nañu ne alfara ilallah ne na ñun ñëpp dañu aajo jëm ci yàlla ne na ñun ñëpp dañoo aajo jëm ci yàlla aajo gi doomu aadama aajo jëm ci yàlla aajo gi doomu aadama ci aajo jëm ci yàlla doomu aadama rek ko aajo doomu aadama rek moo ko aajo moom dafa aajo jëm ci yàlla aajo koo xam ne doomu aadama dafa aajo jëm ci yàlla aajo koo xam ne amul dayo amul dayo saxaaja boobu du jeex mukk. saxaaja boobu du jeex mukk. yeneen yi ci des noppalu nañ. yeneen yi ci des noppalu nañ. bàyyi ma yeeg jamaat yeeg yooyu. bàyyi ma yeeg jamaat yi ak yooyu. seen xel nekkul ca la nekk foofa. ndax ñoom seen xel nekkul ca la nekk foofa. waaye ku xas yàlla hubbil bu ti xol. waaye ku yàlla xamul xam ne yàlla hubbil la sa bëgg xol. da nga tapp jëm ca la nekk foofa. da nga tapp nag jëm ca la nekk foofa. yow am nga soxla soo xam ne dootoo ñàkk soxla mukk la. yow am nga soxla boo xam ne dootoo ñàkk soxla mukk muy doomu aadama. bu rëbb moo di doomu aadama. yàlla dellu ko wax ne bind na ko def ko muy ku néew doole. yàlla dellu wax ne bind na doomu aadama def ko muy ku néew doole. néew dooleem googu mooy sopp gi mu sopp yàlla. néew dooleem googu moo di sopp gi mu sopp yàlla. bëgg gi bëgg yàlla. bëgg gi bëgg yàlla. te yàlla. te yàlla. li ci aaree ñu bëgg. li ci aaree ci bëgg. dëgg mënu ko am. dëgg def yàlla lañ bëgg mënuñ ko jot. moom lu ñuy def nag. ñun yàlla lañ bëgg mënuñ cee jot. bu dindee kiidaay yëpp ba dara doxul suñu diggante moom. bu dindee kiidaay yëpp ba dara doxul suñu diggante moom. mu ñàkkal ñu ba ñu nekkatuñ. mu ñàkkal ñu ba ñu nekkatuñ fa nag sax. dañuy jëriñoo dañuy may. kon nag ñun ñu may luñ koy jëriñoo. ñun doomu aadama. ñun doomu aadama. danañ bëgg aw ñam. ko mu neex ci ñun. lekk ko mu neex ci mënuñoo lekk yàlla xam ngeen. danañ bëgg a naan gu neex naan ko mu neex ci ñun. danañ bëgg a naan gu neex gu sedd. naan ko mu neex ci ñun. mënuñoo naan yàlla. xam ngeen ne mënuñoo naan. ko mu neex ci ñun. lekk ko mu neex ci ñun. mënuñoo lekk yàlla. mënuñoo lekk yàlla xam ngeen. danañ bëgg a naan gu neex naan ko mu neex ci ñun. danañ bëgg a naan gu neex gu sedd. naan ko mu neex ci ñun. mënuñoo naan yàlla. xam ngeen ne mënuñoo naan yàlla. danañ bëgg jigéen ji rafet denc ko. danañ bëgg jigéen ji rafet denc ko. bu ñu jot yàlla ba def ko jabar wala jëkkër. xam ngeen ne mënuñoo jot yàlla ba def ko jabar. wala jëkkër. wala jëkkër. waaw ah, te moom rek lañ bëgg. te ñun kat moom rek lañ bëgg. waaw fu ñu jëm nag. kon nag ñun fu ñu jëm. ngeen xam ne. ngeen xam ne. bëgg gi ñu ko bëgg nag. bëgg googu ñu ko bëgg nag. moo ñu bëgg loo nekk luñ bëgg. moo ñu bëgg loo kat lépp luñ bëgg. te julli. julli julli. bëgg yàlla ñu ci dugal. bëgg yàlla rek moo ñu ca dugal. bu ñuy xool bëgg yàlla bu ñuy xool bëgg yàlla rek dañu ca dugal. bu ñuy jaxal suñu alal bëgg yàlla ñu ca dugal. lekk lekk lekk munuñ koo naan. ko bëgg munuñoo naan leneen nit bëgg diñ bu nekkee kat nit bëgg fii ko bëgg moom ñoo naan leneen nit bëgg duñ ko bëgg. waaye moom bu nekkee naan sax ñu bëgg ko naan. waaye moom bu nekkoon naan sax ñu bëgg ko naan. balaa ñoo bëgg a naan. bala koo bëgg a naan balaa ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñun ñu ñàkk ba nekk. balaa ñoo àgg ci moom ba naan ko. fekk ñun ñu ñàkk ba ñëkk fi ba duñ mën a naan. xanaa xalaat yi xalaatoon. xanaa kon xalaat yi xalaatoon. bëgg a naan rek. bëgg a naan. moo ñu mën di loo. xanaa bon loola rek moo ñu mën di loo. Ibnu Faari la wax ne ne. Ibnul Faaril wax na ne. Ibnul Faaril wax na ne. mi ngi ndokkeel gaañi. mi waa pay bi. waa pay bi. ñoom ñi mën di. ñoom ñi nga xam ne dañoo mën di. ci yàlla. ci yàlla. te naanuñ ko. te naanuñu ko it. xanaa dañ ko itte rek. xanaa dañ koo itte rek. boo ko bëggee naan rek mu ñàkk loola far. boo ko bëggee naan rek yow nga far ñàkk far. kon nag bëgg naan bi mu ngi sax naan. kon day bëgg naan bi rek moo mën a defar naan. ci nga mandee. ci nga mandee kon rek waaw nekkatu fa ndax nekkatu. waaw ca ba naan yow nekkatoo fa. moom moom nekkatu. yow nekkatoo fi moom mi doon naa li fa tuuti. tuuti kii kii daal mooy am nga soog naa ko ci nga bëgg. tuuti ci kii daal mooy xam nga soog a mën a xar bi ci nga bëgg. moo tax. looloo tax. mbëggeel. mbëggeel. di rey xaarifiina yi. di yi. dañ bëgg duñ jaay ndax liñ bëgg du jaag mukk koy soo koy dayoo. waaye nag boobu kat mooy dayoo yëf yi. bëgg. dayoo bëgg. dayoo dikkee. dayoo dikkee. dayoo ngelamaane. dayoo rek la ko ñëw. foofu rek kat la mag yi. na ngeen góorgóorlu foofu. na ngeen góorgóorlu yéen ba àgg foofu. dara nekk fi lu mooy yàlla. dara nekk fi lu mooy yàlla. ku àgg foofu rek àgg nga ci yàlla. ku àgg foofu. àgg na ci yàlla. ku gis mbindeef yi di ñàkk rek. ku gis mbindeef yi di am ñàkk. lu dul yàlla amul. lu dul yàlla amul. sa kiiraay dañ na. sa kiiraay yow dañ na. waaye loolu doyul de. waaye même foofu rek day doyul. ak li muy koy yëpp. ak li loolu yi koy lépp. loo yéeg yéeg da nga fàttaliku sa dëkk bu njëkk a lépp loo am. mu gën a lépp loo am. waaye rek yéegal rek. waaye nag caag yéegal rek. xarit yi dañ di fàttaliku seen njëlbeen. dañ dañ di fàttaliku seen njëlbeen. di mébét delloo woon foofa. di mébét delloo woon foofa. waaye fekk na li mu jëmoo gën. waaye fekk na li mu jëmoo gën. ku demoon bee. ku demoon bee. gisatoo dara lu yàlla. gisatoo dara lu mooy yàlla. bëggatoo dara lu yàlla. bëggatoo dara lu mooy yàlla. gisatoo dara lu yàlla. gisatoo dara lu mooy yàlla. gannaaw bi nga manqué bay am loo bëgg. gannaaw bi nga manqué nag yow bay am loo bëgg. dëgg-dëgg lii rek lay niru sax. loolu dëgg-dëgg. ak rek lay niru. waaye daal mooy mën. waaye nag moo di ak mat. mu tax mais mat. looloo tax ba mat. dafay ñu doog wàññeeku. day ñu doog ak wàññeeku. ndax mat dëgg dëgg dëgg dëgg. ndax mat dëgg dëgg dëgg. mooy bàyyi lépp lu dul yàlla. mooy bàyyi lépp lu dul yàlla. doo ko gis doo ko geesu. doo ko gis doo ko geesu. doo ko yittewoo doo ko xalaat. doo ko yittewoo doo ko xalaat. nga wàññeeku aat nag mel ni da nga gis leneen. nga wàññeeku aat nag mel ni ku gisaat leneen. ngir nga topp ndigal yi. ñëpp nag nga topp ndigal yi. bàyyi tere yi yëpp nga bàyyi tere yi loolu ak wàññeeku la loolu ak wàññeeku la waaye moo di mat waana nag moo di ak mat ku jeexut ci yàlla max max jóg nga ku jeexut ci yàlla max jóg nga ku jeex ci yàlla te dellu si woo ci mbindeef yi ku jeex ci yàlla te dellu si ci mbindeef yi yow kon matoo balaa ngaa mat balaa ngaa nekk mat boole ñaari da ngay boole ñaari naan mandi day naan ba mandi. te mandi googu. te mandi googu. man de ngay tane ñeneen ñi naan. ñoom dox sa digganteel sa barab tane ñeneen ñooy naan. soo mandee nag dëkk ci mandi rek te te te xiri. soo mandee nag dëkk ci sa mandi te rek yow te xari. yaa mandi bu baax. booba daal da nga mandi bu baax rek. waaye ku la gën a dëgër ak mandi rek dafay gaaw a bëri. waaye képp koo xam ne moo la gën a dëgër ak mandi moo lay gën a gaaw a bëri. yàlla. ndax yàlla lim bëgg lim bëgg mooy ñu xam ko la wax ñu jaamu ko la wax waaye teg yi ni sarihatu la waaye teg yi ni sarihatu la wax ñu xam ko la bëgg waaye ñu xam ko la rek la yàlla ñu la ci yàlla ñoo tax muy taw. ñoo tax muy taw. ñoo tax muy saxal gàncax. ñoo tax muy saxal gàncax. ñoo tax muy wàcce wërsëg. ñoo tax muy wàcce wërsëg. ñoo tax doom ñi di juddu. moo tax doom ñi di juddu. bu aarifee yi leer ci suuf rek yi yëpp daal di jaar. bu aarifee yi nekkatul ci kaw suuf rek yooyu yëpp daal di jeex ci kaw suuf. léegi nag. léegi nag. jamono yoo xam ne. ñu ngi ci jamono boo xam ne. madda yi. madda yi. not nañ maanaa yi. not nañ maanaa yi. not nañ roxo yi. not na nit roxo yi te mbindeef yi te mbindeef yi ñu yaaju rek ci matta yi ñu yaaju rek ci matta yi ku am gëm a képp ku am am lislaam zahir la am lislaam ak zahir bi rek sax ñu ngi mel ni jaam yàlla bu baax ñu ngi mel ni baax nga kon ñenn ñi ñoom réer nañ ba gisatuñ lu mooy àddina rek ñenn ñi ñoom réer nañ sax sax lekk ak naan ak rek lekk ak naan ak rek faggu alal denc ko faggu alal denc ko loolu loolu rek ay dundal doomu aadama. loolu ne loolu rek mooy dundal doomu aadama ji. doomu aadama ji fokk yaramam dund ci loolu. doomu aadama ji fokk yaramam dund ci loolu. waaye fokk roxam dund ci leneen. waaye fokk roxam dund ci leneen. roxam dund ci leneen. bu fekkee roxam di dund ci leneen. yaram wi dund wi. yaramam bii dund. jërëw ko di am ñëw. jërëw ko boo doon ñëw. ñëw la ba ñu rab ci biir yaram yaram. ñëw la boo xam ne dañ koo rob ci biir yaramam. balaa nekk kuy dund. balaa nekk nag kon kuy dund. bata rawam dundee ci yàlla. bata rawam di dundee ci tudd yàlla. bëgg yàlla xam yàlla. bëgg yàlla xam yàlla. jege yàlla. jege xëcc yàlla. dëkkaale yàlla. dëkkaale yàlla. boo nekk nekk fa yàlla. boo nekk nekk fa yàlla. téye yàlla bi ñuy wax. téye yàlla bu kawe bi. téye yàlla bu kawe bi. ci taxoon ñu rañaane Muhammad ba mu jàll asamaani juróom-ñaar. ci taxoon ñu rañaane Muhammad ba mu jàll asamaani juróom-ñaar. téer yàlla boobu mooy foo nekk rek te dara doxul sa diggante yàlla. téer yàlla boobu mooy foo nekk rek te dara doxul sa diggante yàlla. te loolu dana daal di jëriñ ci sa jëmm. te loolu dana daal di jëriñ ci sa jëmm. jëriñ ci sa barab jëriñ ci sa waxtu. jëriñ ci sa barab jëriñ ci sa waxtu. ndax yëf yi. ndax yëf yi. xaaj lañu rek. xaaj lañu rek. ci ki amal yëf yi. ci ki amal yëf yi. mbindeef. mbindeef. xaaj la ci ci ko bind. page la ci ki ko bind. man da tàggoo ki ko bind. man da tàggoo it ak ki ko bind. fokk mu ànd ak yàlla yàlla ànd ak moom. fokk mu ànd ak yàlla. yàlla it ànd ak moom. muy xaare. muy xaare. wala. wala. mu ànd ak yàlla te yàlla mu ànd ak moom. mu ànd ak yàlla. te yàlla àndut ak moom. loolooy li gën a bari. loolooy. li gën a bari. li gën a bari. maqaam ak dextaan. ñoom naqaamal lisaan. ñoom dañu ànd ak yàlla yàlla ànd ak ñoom. ñoom dañoo ànd ak yàlla. ku yàlla ànd ak nag. ku yàlla ànd ak yow itam. tere yow nga ànd ak yàlla. du tere yow nga ànd ak yàlla. mën naa tàggatoo. ndax yow mënoo fa tàggatoo yàlla. te jëmm ji ne. te jëmm ji. baaraam bi gën a tuuti. baaraam bi ci gën a tuuti. nga beru tàggu jëmm ji. mën nga beru moom tàggoo ko jëmm jëmm ji. jëmm ci nit loxo bi xaaj la ci loxo bi xaaj la ci si loxo xaaj la ci benn loxo bi xaaj la ci loxo bi xaaj la ci bopp bi xaaj la ci tànk yi xaaj la ci tànk yi xaaj la ci ak yëpp cër benn bu ci nekk ab xaaj la ci jëmm ji benn bu ci jóg rek jëmm ji benn bu ci jóg rek jëmm ji dal lay man ci yëpp booloo mooy jëmm ji bu yëpp booloo lay soog jëmm ji waaw bu jëm ji amé taxaaj yooyu am kon nag bu jëm ji amé taxaaj yooyu am kawla kawla ñu mbir du kawla ko ne mi dina du kawla jalañ du kawla jalañ du kawla ñew na du kawla ñew du kawla kat na du du kawla ndoro nit du kawla tan du kawla tan du kawla kon kawla kon sala du am mukk jaam bi itam jaam bi itam bu dee yàlla la bëgg bu dee yàlla la bëgg tëjëli bu taxaw ci kanam lii du bu taxaw ci kanamam lii de moom du yàlla waa gi yàlla mukk booba jaam day teemoo toog na tàmbalee ci la ko gën a jege na tàmbalee ci li ko gën a jege su bëggee àgg ci yàlla mu sori ma ma kon mën nañu xam yàlla ci kay mën nañoo xam yàlla ci jaam yi. mën nañoo xam jaam yi ci yàlla. mën nañoo xam jaam yi lépp ci yàlla. ndax mënuñoo génn ci loxoom. ndax mënuñoo génn ci ay loxoom. ñooñu ci ab téem. ñooñu ci ab ndëbëm. ñu ne ko xaw ma ñu topp mbir yi di leen neexal di wut seen gërëm. dañu yeboo sax bañ a topp mbir yi di leen neexal di wut nañ wut gërëmal yàlla bi nga xam ne moom mi ngi teew ci mi ngi kanam kontaanee. yàlla mi teew ci suñ kanam kontaanee ci ñun. ñëpp kontaan ren rek la ñu xaree. ñëpp doon kontaan bu leen neexee ak bu leen naqaree. bu yàlla bëggee jaamam. moo bëggee ñu yàlla naan ñu ñu bëgg ko digal ñu ko. mooy mënuñoo ñu bëgg. mooy bëggee daal ñu bëgg bu leen neexee ak bu leen naqaree ci kanam. léegi nga gis nañ ko bu taxaw fële ne ma yàlla. léegi nga gis nañ ko bu taxaw fële ne ma yàlla. boobu ko am yàlla ndax amuloo ko. ndax boobu ko am yàlla amuloo ko. bu fekkee la wax dëgg la. bu fekkee ne la wax dëgg la. te sori yàlla bëre yàlla. te sori yàlla bëre. yàlla kenn du dajeeg moom kenn du ko gis. bëre yàlla kenn du dajeeg moom yàlla kenn du ko gis. te jéem ko jege yàlla. ba jéemu dawut jege yàlla moom. ndax loolu dina ko tax a sori yàlla. ndax loolu mën na ko tax a sori yàlla. ndax loolu mën na ko génne ci yàlla. ndax loolu mën naa tax mu génne ci yàlla. ndax loolu mën naa tere boo amee yàlla rek amaale ko mu neex ko. ndax loolu nag mën naa tere boo amee yàlla amaale ko mu neex ko mu naqadi ko dara du ci loolu. mos naa demee ko benn commandant. bàyyi ne mos na demee nekk benn commandant. ci tubaab yi fi nekkoon. ci tubaab yi fi nekkoon. lu ko sant rek loolu day def lu bàyyi sant commandant bi rek mu def noonu commandant bi dañuy jullit ñu ne commandant bi dañuy jullit la taalibe la chef taalibe la moo tax wéy ci lépp loo ko sant moo tax lépp loo ko sant rek mu wéy ci xam nga moom moo demee ñu ngi wax wala suñu jullit la déglu bàyyi na leen man day wax bu ma dee fa moom Cheikh Tidiane laay gis man de bu leen ne jullit la man du ma ko may waxuma jullit la waaye wax wala jullit la waaye wali la sax. wala mooy wali wali wala boog mooy wali wali ak boog mooy wilaaya ndax bu loolu xamee. kooku kon dana mën a jënd ci. jaam bi am yàlla. jaam bi xam yàlla ba noppi. xanaa ci kooku. xanaa ci kooku ndax mën na cee jënd baax. mukk nañu ci njëriñ. nañu ko di njëriñ. te nañu ci njëriñ ci yàlla. te nañu wut njëriñ ci yàlla. te yàlla nañu ko wut. te yàlla nañu ko wut. nañu ko wut ci jaam yi. mulkoog malakoot ñooy ñooy jokkoo. mulkoog malakoot ñooy jokkaloo. jàmm ñëw fi yàlla rek a fi nekk. jàmm bi ñëpp fi yàlla rek a fi nekk. rawatina jàmm bi xam. برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام